coalition jàmm ak njëriñ mooy coalition bi nga xam ne moo gën ndax coalition boo xam ne kat ka ko jiite doy na royukaay mooy li nga xam ne foofu la ñëpp war a jublu ndax Amadou ku ko xam xam ko ci dal xam ko ci téy xam ko ci koo xam ne am na expérience te tam am na yar te jox na euh, eh, cër kilifa diine yi mu nekk lu am solo ndax jamono bi ñu toll nag dëkk bi dafa doy waar ba tax na képp ku ñuy jàppale rek na nekk koo xam ne am na yar am na euh, euh, am na expérience bi te tamit am na fu mu xam ne teg nañ fa fi nga xam ne mooy mag ñi nga xam ne mag ñi mooy ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo nekk Sénégal. maa ngi lancé un appel ah di ko lancé sama yaay yi di ko lancé aussi samay bàjjen di ko lancé aussi samay xarit ñi nga xam ne ñoo eh, jàngandoo màggandoo ñoo xam ne ñoo doon foo. depuis tant xale diko lancer aussi samay xarit nga xamné ñu ngi université ndax dëgg la euh dëkk bi metti na mais bu fekkee ne bi dëkk bi métti na euh, nangu woo japp ci nga xamné ne am nañ yaakaar ne ñooñu buñ fi nekk dinañu jappalé day melni ni dëkk bi metti wu ci ñoo te élection yi weesu na li am élection présidentielle yëpp gis nañ ko mais pour ñu rectifier tir bi il faut que euh, campagne euh, il faut que élection présidentielle yii di nek ñu mën def le tout ba opposition bi am majorité lolu moy li ngay xam mo mo moo te opposition am majorité moy lan moy ñu voter en masse pour la coalition jàmm ak ndax ku dégg coalition mu ñu pour ko jàmm tey xale bu juddoo sax dañ koy ñaanal yàlla mu màgg ba am jàmm am njëriñ fa mu dëkk donc coalition bi am nañ yaakaar que ne tey buñ amee majorité ci assemblée nationale lépp li nga xam ne bëgg nañ ko dinañ ko am ndax kat ñii nga xam ne ñoom lañ àndal di euh, maire Tataguine di honorable Berthe ak ñeneen ñi nga xam ne investi nañ leen ci département bi parce que on est au nombre de dix ñooñu tey buñ amee chance ñu am majorité ci assemblée am nañ yaakaar que ne liñ bëgg ak li nga xam ne métti na ci dëkk bi tey ñu mën cee indi saaf ñoo mën cee indi ay ay ay solution Je tax na un appel à tout le monde surtout sama les hmm. femmes et les jeunes Nous votons en masse pour la coalition jàmm ak ndax coalition bi xam ne moo ñu yokku jàmm yokku ñu njëriñ Sénégal ak ci ah, ambassadeur Sori Kaba président du comité électoral départemental de Fatik. ci sunu calendrier électoral organisons organiser caravane dans les rues de la commune de Fatik. Nous niñ ko organiser ci biir commune bi lañ ko

nous avons 9 personnes parmi nous investissent dans le département. 5 titulaires du lycée national et un suppléant nous avons dans le lycée départemental Amul ci ben département dans les 46 départements du Sénégal faut xamantene investir nañ fi autant

te li tax ñu bàyyee bàyyeekoo foofu moo di que président Macky Sall bi nga xamante ne tey moom moo nekkoon tetu coalition bi nekkoon président bu senegal ba mu defee deux mandats jóge ci bopp réew mi daf ñoo joxoñ Amadou Ba nit nag da ngay jàpp benn yoon. jàpp jàppaat dafa am lu luñ ciy wax ñun fas yéene wuñu ñu boole ñu ci ñuy jàpp di jàppaat dañuy jàpp tee moo tax ba nu jàppee le président Amadou Ba bàyyiwuñu muy utal keneen moom la président yi moom mooy tête de bi mais keneen lay utal ñun nag suñu bopp la ñuy utal kon loolu moo tax mu yomb mu jafe doomu dëkk bi lañu te defuñu fi lu fi ñaaw ba tax buñu woté nit ñi duñu wuyu ci defuñu fi lu ñaaw bay laaxatu boo ña woté lolu mo andi woté bi te nit ñaa ngi ñuy wuyu si ñu ci ciy sant yàlla bu baax. man la Ibou ndjay maire tadagine tête de liste département de la coalition jam ak Njariñ dirigé par le président Amadou Ba. ta porte amna ay porte à porte amna ay caravane amna ay meeting tay comme tay fiñu nek nekk jurup nga xam tay responsable Diouroup yi ñoo dajalo organisé meeting bu rëy bi nga xam ne tey ñoo ñuy teeru fii ci ci kon yaakaar na ne euh, ndam li moom ci kanam la te incha allah bu le 17 jotee dinañ euh, am ndam département Fatick ak Sénégal. incha allah Amadou Ba ñu ko fi xaar ci biir semaine bii di ñëw. donc ñeneen yi jaar nañ bi waaye yaakaar naa ne gis ngeen li leen waa Sine teeroo waa Sine wane nañ ne am nañu kooku te kon nag bu président Amadou Ba bi dinañ xam exactement que Sine la ñu joxoon président Macky jëlaat nañ ko teg ko ci loxo Amadou mooy titre foncier bi titre foncier bi léegi Amadou Ba moo ko téye voté ma parce que élection bi du élection yu am njëriñ la élection yoo xam ne tey euh, moo nar yeewi Sénégal parce que Sénégal depuis 7 mois dañ ko yeew donc il faut que quand ñu jox opposition ay députés yu bari notamment le président Amadou Ba nga xam ne tey euh, bu ñu demee assemblée national comme ni ko waxee ñu mën a yeewi senegal ni ko waxee bu toogee bu amee majorité bu toogee ñetti weer dina wàññi ceeb bi dina wàññi diwlin bi dina wàññi courant kon mbokk yëpp Sénégal siin ak fépp ku nit nekk nañ leen woo ñu ngi leen di woo ñu voté coalition jàmm ak njëriñ di xamee bulletin bi nag bulletin bi mooy bulletin bu wax bi am ay bind yu verte bi te ñu koy ràññalee baobab bi guy kon nag yaakaar na ne loolu mooy message bi ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah